ceeb bi ngeen jàkkaar lool ak suukar seek diwlin géeg ndox mi ndimbal goo xam ne soxna Baali Muntaxa moo ko yëkkati ngir jébbal ko centre des opérations d'urgence sanitaire bi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tey saytu li nga xam ne moo jëm ci jàngoroy coronavirus gi loole lépp ngir ndimbal loo xam ne da leen ko jox ngir jàppale leen ci ñi nga xam ne dañ leen mettre en quarantaine loole dolli ci ndigal gi nga xam ne Sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru joxe na ko ngir ñu leen di jox bés bu yàlla sàkk fanweeri bool ak benn yoo xam ne ay ñam la ngir jàppale ko ñi nga xam ne ñoom lañ mettre en quarantaine liggéey bi nag day tàbbi ci li nga xam ne soxna Baali Muntaxa dooroon na ko ci bi jàngoro ji tàmbalee ci biir réew mi muy ndimbal yu takk lool yoo xam ne amal na ko dooree ko woon ca diwaanu Poroxaan ngir jàppale mboolem ñi nga xamante ni ay daara lañu ak kilifa ak ñi nga xam ne war nañoo xeex jàngoro jile. auzu billaahi mina sheytaani rajiim xablil safinatan bi kullil janna min daaratin min na ni yaasal min mbokki jullit yi mbokki lislaam ginnaaw bi nu sant yàlla sunu borom ñu ngi julli ci sangi sangi sayduna muhammad di dellu di sant Serigne Touba xaadim rasool di ñaanal seen Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassir yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba naal yi mu naalal lislaam naalal ko sëñ tubaa mu àggale kook sagoom di ko ñaanal képp koo xam ne yaa ngi soso daal dox te lislaam ñoo ngi nii nag tey ci kër Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassirou xareet fii nga xam ni mooy barabu soxna Baali Muntaxa bintu Serigne Souhaïbou Mbacké Xaadim Rasuul liggéey kaa liggéeyaa ko nu Serigne Touba bi nga xam ni du tàyyi du noppalu benn yoon suba ngoon gu ba bëccëg mi ngi ci liggéeyal maamam euh, soxna jaara waaye liggéey Serigne Touba jaare ko ci buntam bii di Cheikh Mouhamadou Muntaxa Basiir ku ne gis na nag balaa bi nga xam ne yàlla sa borom moo ko wàccee ci mboolem àdduna bi ñuy ñaan ci barkeeb Serigne Touba yàlla na ko sa ci àdduna bi yëpp. ba ñëpp am jàmm kenn ku ne delluwaat sa sago yàlla defal nu wér ci li sëñ Tuubaa woon anjil si fa ak maakaana daa i wala tuxaami na bil ibtilaahi soxna Baali nag ku ne gis na ni bi nga xamante ni mbas mi wàcc na ci réew mi ba tey toogul benn yoon noppaluwul benn yoon ndax dafa ne moom benn royuwaay la am benn jubluwaay la am muy Cheikh Mouhamadul Muntaha te ku ne gis na bi mbas wàccee ci réew mi Cheikh Mouhamadul Muntaha mooy sénégalais bi nga xam ne moo ci njëkk a jàppale état ci alalam yëkkati deux cent millions def ko ci waaye taxul mu noppalu waaye jëlaat aw dund di ko séddale ñi nga xam ne ñooy néew di doole yi waaye mbooleem lépp loo xam ne rek war naa mën a tax saa borom fànkal nu ko ci ni ko docteur yi diglee sëriñ bi joxe ndigal loolu ba ñëpp ànd ci bërki ma gis ngeen na soxna Baali ca Poroxaan mu dem sensibiliser ñi nga xam ne ñooy turandoo maam jaara ya fa ne di jàng jàppale waa centre de sant ba fa ak mboolem fii ci Touba boobu ba tey mi ngi sensibiliser mi ngi dajale nit ñi di waxtaan ak ñoom ci ñu gën a mën a fagaru ci li nga xam ne mooy doomi jàngoro bi tey jii nag ñu dajeeg ñi nga xam ne ñooy waa COUS COUS nag boo ko déggee mooy centre des opérations d'urgence sanitaire mooy ñoom ñi nga xam ni ñoo dajale ñi nga xam ni ñoom la tawat gi dal ñoom ñii ñoo leen quarantaine ci ay barab di leen saytu di leen faj ba ñu wér te alhamdulilah boobaak tey ñu ngi ciy gis ay résultat fii ci Touba nag Cheikh Mouhamadul Muntaxal Basir wax ni weeru koor gi yëpp fas yéene na àndante ko yéen incha allahu rabbi bis bu set dana yëkkati fanweeri ndab ak benn jox leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo tawat gis ngeen ndab yi noonu bu ngeen gisee li tax kenn defu ko ci ay ndab ñu def ko ci ay mbuus ndax looleel moom la nu waa santé digal te moom la liggéey bi laaj soxna Baali wax ni nag moom ci jéego rek ci la ne. moo tax gis ngeen ceeb bii ak suukar si ak ndox mi soxna Ba li wax ni moom moo ko participer jàppale leen ko ci loolu nga xam ni moom la sëriñ bi def lii mu ci tagaat nag jël ko joxe ko ci loxo boppam lim bëgg mooy képp kuy gis image bi mbaa képp kuy seetaan rawatina jigéen ñi ndax soxna Ba li nee na yéen la ànd liggéey sëñ Tuubaa bi yéen moom ci kuréelu maam jaara yi yéen ak moom ci lépp yéen ñi nga xam ni yéenay dem marché di nduggi yéenay uuf xale yi ci kër yi. soxna si nee na sensibilisation boobu ci yéen la koy njëkkee moo tax mu yëkkati masque yi joxe ko joxe na lu mat junni masque ngir fas yéene koo séddale fii ci biir dëkk bii di Touba fas yéene koo séddale ci daara yi nee na nag loolu mi ngi ciy soññi jigéen ñëpp ñu gën a fonk masque yi te gën di ko takk te xam ne lépp lu nu digal rek ngir tawat gi ban a agsi ci ñun soxna Bali nee na loolu mi ngi koy digal ñëpp mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm yéen ñi nga xam ni yéenay waa Kuus ci ci seen njiit docteur Dieng ak mboolem ñenn ci district sanitaire ba yëpp soxna si nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di bu baax ci li nga xam ni yéen a koy daj ci malade yi waaye résultat yi ci am ngeen di faj ba mu wér nee na ndax moom saa bu jàppee télé gis ñu ne Touba nangami kaa waaye nangam yi nangam nangam nee na loolu dafay seddu xolam ndax ñoom amuñu lu ëpp Touba waaye loolu ñu ngi koy ñaanal waa àdduna bi yëpp di ñaanal waa Sénégal gépp nee na fàttewul benn yoon it xam ne ñoo nekk bitim réew di ay mbokki taalibe di am na jàmm di soppeeg re soxna si nee na xelam jugul ci yéen benn yoon fi mu toog mi ngi leen di ñaanal ci barke Cheikh Mouhamadou Mountakha barke Serigne Souhaïbou barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yàlla na tawat gi jeex ci àdduna bépp te bu mu bu mu agsi ci yéen kenn soxna saa ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm te fas yéene na tamit beneen programme boo xam ne ci biir koor gi comme ni ko sëriñ bi diglee ngir jàppale daara alxuraan yëpp fenn fu ci ne soxna Bali fas yéene naa dem ci ñoom ba ci ba ci sancaan yi ci ni ko sëriñ bi diglee ngir jàppale leen ci seenu dund nee na ndax lii wàcc kat day balaa boo xam ni ñun ñëpp li ñuy ñaan daal mooy sa borom na yemale ko fi waaye daal nee na fas na yéene lu mu mën ak lu mu mënul dina ko jàppale nit ñi ci kattanu yàlla ak ci mbaaxu sëñ Tuubaa mi ngi ñaan si mun Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér wasalaamaaleykum wa rahmatullah ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di si jiital sang bi mi nga xam ni moom moo jiite njaboot ji nga xam ni mooy muridu ya yëpp ci ci Sénégal ak ci bitim réew. soxna si li mu def lu rëy la lu am solo la loo xam ni également ñu ngi ko ciy sant sant bu gën a kowee sant bi nga xam ni mu ngi suñu xel xol ak suñu xel ndaxte képp koo xam ni jël nga ndox jox ko doomu aadama mooy li ñuy wax nit ñi nañu raxasu kon yow boo déjà dugg nga ci lu fond boobu nañu raxasu mais ndox day tooyal saabu mooy setal donc ñu jël ndox ak saabu raxasu saa su nekk ak fépp foo xam ni war nañ faa dem waxtaan nañu ak yow soxna si léegi nga wax lu am solo parce que nga ne bu ñu jagalante loolu également dafa bokk ci yi nga xam ne ay kàngam la yu wër yu ñu wax mooy un mètre moo war a nekk suñu diggante ñun ñëpp pour que ñu mën a dox loola. Euh, li nga xam ni également mooy saaku ceeb képp koo xam ni sa biir fees na sa tawat wàññeeku na te loolu mu ngi nii gants yi nga xam ni moom nga wax aussi yi nga xam ni moom la ñuy sol masque yi solo bi mu am solo bu am solo la. xam nga masque bi yow yaa ngi sàmm sa bopp waaye yaa ngi sàmm également sa sa naatangoo donc loolu képp koo xam ne mu ngi sa xel mooy yaa ngi bëgg wér gu yaram bi kat law nit ñëpp wér parce que ku nekk war nga jël masque bi di ko sol masque dafa am ni noo xam ne également noonu lañ ko war a takk sole doo jël rek coupe élastique yi ci ngay téye dugal ci nopp bi téyewaat élastique bi dugal ci nopp bi xëcc ba xam ne léegi day egg ci ci bakkan bi nga téye ko fa ak élastique bi nga xam ne moom moo ci nekk il faut ñuy ràññee ni fii bokkul ak fii fii li nga nekk mooy ab fer boo xam ni moom ngay bës pour mu jàpp ci bakkan xëccaat nag ba nga xam ne day ñëw ba ci euh, ci ci nga xam ne mooy put gi mu ñëw ba ci suuf loolu également lu am solo la lu ñu war di jëfe la sasu ne kon li nga joxe fii yëpp tal la pour que nit ñi mën a am wér ñu lay wax ni également bi ñuy ñëw ñi ñu àndal ñu am solo lañu parce que sëriñ Xaadim Njaay mële la ñu àndal moom mooy yore lépp loo xam ni wàllu social la ci Mbacké ak Touba ànd également ak Cissé mi nga xam ni moom moo yore CPRS centre de centre bi nga xam ni moom moo yore lépp loo xam ni ci wàllu social la ëmb ko di ci saytu guddi ak bëccëg ànd ak également ki nga xam ni moom mooy madam Boye yore tout ce qui social ci fi nga xam ni mooy hôpital bi ànd ak également ak ki nga xam ni mooy madame Diagne moom it bokk ci ñi nga xam ni kàngam la ci wàllu centre bi ñu nekk kàngam la ci wàllu social bi ñu nekk da ciy dox guddi ak bëccëg moo waral également seen xame bi moo waral également mu jur lii kon loolu ñooñu la ñu àndal ci bërëb bii di wax ni nag li nga wax ci masque yi faw ñu topp dee leen sol jigéen ñi masque yi lu tax ngeen war ko sol mooy su ngeen di dem marché il faut ngeen jël su suñuy dugg ci oto yi il faut ñu sol masque parce que ki ngay jànjal mën na tissooli te également li muy jën ci gémmiñam mën na laa jox tawat bi kon loolu également il faut ñu sàmm ko di ko jëfe guddi ak bëccëg loolu la ñu war a def saa su kon léegi kon soxna si won nañu yoon bi am naa yaakaar ni ci kilif téemam am naa yaakaar ni également ci jëmmam ñi masque moom deet dinañ koy sol saa su ba ñuy mujj sax xanaa waa Touba yéen masque rek ngeen di sol parce que ndigal la te ndigal moom toppe la donc kon ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal ngën gi jaajëfal jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen